xam ne mooy boursier aussi tey euh, bu ñu bu ñu bu ñu amee problème dañu woo ki nga xam ne mooy directeur bi te directeur bi heure boo ko woowee aussi directeur des bourses moom def lay wuyu étudiant simple sax boo ko woowee de da koy wuyu parce que kooku c'est un euh, c'est un bon directeur il c'est un bon collaborateur day servir li nga xam ne mooy euh, mooy mooy mission am donc tey côté boobu noonu aussi côté bourse yi man bëggoon naa ci jàlle hommage ah parce que tey boo xoolee on est le 12 décembre te le 12 décembre ba léegi mënaguñoo fay li nga xam ne mooy étudiants yi étudiants à chaque fois ñu ngi xaar on communiqué te directeur des bourses moom defar na euh, état bi ba envoyé ko ministre des finances mais ba léegi ñoo fay directeur des bourses du fay mais tey day defar état envoyé ko léegi aussi kooku moo war a def retour mais boobu ba léegi instant bi tey étudiant bi jotagul li nga xam ne mooy bursam te moment bi moom la étudiant bi gën a soxla bursam parce que tey comme instant bi ñoom euh, wax nañ ne def examen am na ñoo xam ne peut-être commencé nañ am na ñoo xam ne instant bi ñu ngi a a def si examen mooy fac lettres la pour mun a pass ñëw Dakar def si li nga xam ne examen am donc tey ñooñu dañoo war a gëstu étudiant yi mm-hmm. état bi dafa war a gëstu étudiant yi état bi dafa war a gëstu li nga xam ne mooy université loolu mooy dégg te loolu mooy yoon te loolu ñu xaar bi c'est une vieille méthode ah balaa ñuy euh, mën a fay étudiants yi rek ñu tàmbalee euh, yëngu-yëngal ñu bés bu ñu tàmbalee rek soo moytul jour boobu message yi wàcc loolu moom dama yaakaaroon ne jeex na ndeke ba léegi mi ngi am Amadou.